bi ñu xoolee mbas mi euh, ñu mu song torop suñuy mag ñu ne nag comme soxla nañu suñuy mag ñu nit ñu ne nañu leen jóg ndax mag ñi koo ci gis mu ngi ci ruqam xam nga yow dañ la fekk nga beru toog nii donc ñu ne kon lépp lu la mën a dal daf la fekk si ah ñu seetlu ñan ñooy dem ñan ñooy dikk ñan ñooy gàddu ñan ñooy indi ci kër yi ñu ne xale yi ndax xale ak maamam bu ko maam seeni rek day dee daal di jël këf teg ci luppam ñu ne nag léegi maam il faut nga changer comportement changer comportement bi mooy lan gaa ñi bu ñu dematee fooyiti ba pare bu ñu ñëwee euh, bu ñu la jege nañu leen jël sang leen ba pare ñu soog a ñëw ndax ñoom bu leen yëf yi dalee du feeñ te it duñ ko seetlu ay asymptomatique lañu ñu ne kon mbir mi li koy dugal ci man mi parce que mag moo gis ma nga cëru xam amanaa booy dem ci néegam sax dinga jaar ci saal jaar ci beneen kii soog a àgg ci néegam kon ñoom bu leen mbir mi fekk see rek ñoom ñoo ko indi alors ñu ne nag léegi kon maam na changer comportement moom mooy lan gaa ñi buñ ñëwatee nañu leen sang ba pare ñu soog la jege parce que maam bu jat bu bu jàppee euh, taaw day ñëw ne ko yaay ndax yaram bi dafa sutante nangam sangam daal di ko fa jële wële leen jox leen ku ci nekk ab gel boo xam ne di nga ko mën di euh, laal te temps en temps boo toogee ba xam ne xel mi kii la kon ni ko gisee ay ndaw commune bi suñu jigéen ñi suñu yaay yi euh, ay collaborateurs ministre Abdou Karim Fofana ah, ñëwoon tey fii si commune bi ah, fii leen may leen ay masques ak ay ay pompe pour mën a aar bàtt di wax xale yi nag ñu gën a moytu parce que nee nañu ñoom ñooy indi feebar bi donc nañu gën a aar mag ñi programme boobu ñu ñëw fi tey ànd seeg suñu yaay dafa sàmm donc su nekkee am nga carte wax si sànni moom lay ko asalaamaaleykum maa ngi dégg kontaan ci initiative bi ngeen def nii initiative bu noble la parce que comme ni ko ñëpp waxee rek corona bi moom ñun ñëpp a ngi ciy xeex lii ngeen def nii macha allah yal na ko yàlla gën a ful ba ñëpp comprendre ko noonu di ci dox di ci xeex ba yàlla fay ko kàttanu yàlla ci àdduna bi yëpp kenn bañ a di feebar kenn bañ a wàll kenn bu ñëpp delluwaat ci seeni sax loolu daal laa bi nekk suñu réew. ci sensibilisation bi. ñu insister sur un essentiel. mooy lan li ñu fi maam yi bàyyi. maam yi nee nañu dina matte du matte bul jox sa loxo. ça mord ça ne mord pas ne tend main. il ñu fàtte loolu. waaw. incha allah point mooy il le point suivant il vaut mieux avoir des problèmes de respiration et être vivant que de ne pas avoir des problèmes de, respiration et de mourir. La vie est un choix, il faut faire un bon choix. district euh, Gaspard Camara di bokk ci district sanitaire sant nekk président ASC si si commune bi ah man de je vais orienter mon discours sur sur la jeunesse la jeunesse sénégalaise la jeunesse consciente en tant que jeune di leen ñaar nekk cette pandémie il faut pas ñu koy foowee c'est une pandémie qui existe au niveau mondial ñu koy dund chaque jour di gis ñu ñu jege di gis si niy waaju di si wàññeeku ma doon sensibiliser si côté wu geste barrière yi moo tax tey la commune de Fann Point Amitié avec le district centre Gaspard Camara avec les actions les euh, acteurs politiques de les les hommes du cabinet de Abdou Karim Fofana ñi ñi ñi doxaloon lii pour ñaar sénégalais yi que feebar bi lu existé la dugg ci commune Fann Point Amitié def action communautaire ñaax nit yi ñaax suñuy ñaar euh, euh, ñaax suñuy dëkkandoo suñu pap yeeg yaay yi il faut que ñun ñu protéger leen wax leen ne il faut que ya des gestes barrières qu'on doit respecter cette action communautaire suñu duggee ci kër yi danañ maye ay gel hydroalcoolisé danañ maye ay masque danañ sensibiliser aussi les familles les populations que feebar bi c'est une pandémie qui existe et il faut pas négliger donc je vais orienter sama discours ci sens boobu ñaax la jeunesse sénégalaise debout comme un seul homme xeex pandémie bi mu juge fi y a beaucoup de discours nag si si si Sénégal éviter les grandes places éviter yenn regroupement yi muñ yàggul xeex feebar bi on est en en guerre xeex ko mu juge fi incha allah mu nekk si ni ginnaaw wasalaam